dal leen ak jàmm mbokku internet yu seen football tv di am mbégte saa su ne euh, comme ni ma koy waxee à chaque fois jox leen ay xibaar din waa wax asalaamaaleykum wa rahmatullah dal leen ak jàmm si chaîne bile mbokk yi nag tey dañu ñëw wax si entraîneur bu euh, Paris FC maanaam entraîneur bu Moustapha Nam bi xamante ne jamono bi nag dafa nekk ci form bu doy waar une semaine rek mu dugal 4 bi triplé na fi dugal bi donc ci forme extraordinaire la nek euh, Moustapha Nam xam nga du côté de Ligue 2 française voilà ba tax na nag entraîneur am Thierry Loret maanaam ancien entraîneur bu Strasbourg euh, dafa tok wax euh, jëmale ay kàddu ci Aliou Cissé nee bobu ba légui mo ngi jéem a jot Aliou Cissé mon ñu ko jot té ñom dañu am 3 jours yu xamante ne dañuy dem kaan c'est juste nak pour waxtaan ak moom mais batay bobu boobu ba léegi ñoo bëgg jot jotuñu ko dem ci directeur sportif am pour mu jot coach bi jotu ko néna dinañu waxtaan 2 3 minutes ce serait sympa ça la ko tuddee donc xamna naa ki kii kàddu yi mu wax ni jëmale ko ci ci lu négatif donté nak xamna naa ne intérêt gis na ne joueur am nekk na forme xeyna na peut être dafa bëgg laaj Aliou Cissé bu fekkee naroo ko teg titulaire pourquoi pas nga bàyyi ak man parce que dama ko soxlé dama bëgg pour yéeg euh, Ligue 1 française kàddu yi mën na nek lolu xam bëgg na xam peut être ban registre la bëgg utiliser football moom yag na ci lii nii sélectionneur ak entraîneur dañuy faral waxtaan parce que entraîneur bi tout le temps tout le temps moo yor joueur bi li muy xam si joueur bi sax sélectionneur bi du ko xam parce que sélectionneur bu ko yoree mois bi balaa mu koy yoraat te yàgg alors que euh, entraîneur bi euh, chaque jour da kay gis chaque jour ko jëfee da koy gis xam na potentiel am xam na euh, li mu mën xam na li mu mënul bu dul dara sax mën na ko aider

bëgg na xam Aliou Cissé ban registre la bëgg a utiliser Moustapha Nam ndax rek ay teg titulaire naa du ko teg titulaire gis nañ ne à chaque fois aussi moom mu ngi xool loolu moo gis ne Moustapha Nam moo ngi ñëw national du Sénégal du jouer et tout peut-être moo ngi jéem a xool nan la mën a def pourquoi pas waa ji bàyyi ko xam nga fii ak euh, Coupe d'Afrique bi di commencé ñu buñ ko teel a jël même si nag boo gisee Boxing Day amul euh, France euh, Boxing Day Angleterre la am fële en tout cas li ñu leen mën a wax rek si xibaar mooy que moom jamono bi voilà joueur am 15 matchs mooy ngi dugal ay bii joxe ñaari passe de saison bi léegi. ñaar bi dugal na ko tam na si Ligue 2 française joxe ñaar positif nekk na si benn forme bu bu baax baax a baax muy euh, Moustapha Nam mbokk yi lii mu nekkoon xibaar bi euh, ci commentaire yi wax leen ma seen xaat ak seen gis-gis li Aliou Cissé bañ a wuyu nax ni mu def noonu la wala da ngeen gis ne war na ko mën a wuyu waxtaan ak moom di ko wàññi dara en commentaire ku si nekk na wax xalaatam di wax itam mën ngeen dem suñu compte Instagram dem fa euh, que ça soit Facebook que ça soit Twitter que ça soit TikTok boo leen tapé Senfootball TV di ngeen gis logo bi abonné abonné fii ci YouTube cliquer si cloche boobu ngeen di gis vidéo bi ñu dugal ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen sur Senfootball TV.